bi sallallahu alayhi ñun bi campagne bi commencé ba léegi kenn dégguñu si ay xeex kenn dégguñu si ay violence jàmm la ñu woote nañu voté si jàmm dem si jàmm bu wii jotee ñu félicité wii su noo jotee su noo gañee nañu am seen ngor félicité leen parce que Sénégal jàmm rek moo fi xas bu fekkante ne nag dañu recruter ay nervi bëgg woo nit ñi si violence danañ ko defante ak ñoom si rajo nag. askan bi yaakaare nañ ko feneen lu dul nekk recruter ay nervi taxaw pour attaquer nit man nag jàmm laa woote nañ ma fekk si jàmm jooju ku ma fekk si nag si xeex danaa jàmmarloo ak yow ku laal sama cortège danaa ko defante ak yow li may wax nëbbu ma ko je ne le parce que lii wane ne i irrégularité fépp la am boo xoolee tey Touba am na bureau de vote yoo xamante ne nguur gi ubbiwuñu ko tey fii si centre euh, Maodo Kane bureau numéro 9 suñu rakk yi taxaw muy Khalifa Gueye dafa dem di voter ji ñu voter en sa place ça c'est du vol et ça incombe de la responsabilité du chef de centre parce que nag dañ on va les poursuivre dañ leen parce que ça c'est du vol c'est quelque chose qui est visible du lu ñu inventé du lu ñu créé bis bu ñu ñàkkee nañu jàpp ne seen incompétence moo tax sénégalais yi leen parce que tey lu réew mi doxee ñëpp xam nañ ne le mal est partout jot na nag ñu arrêté li ñuy def di koj nit ñi di leen xoqatal di asaare conscience ku leen jox xaalis lekk leen ku leen jox ceeb togg leen bu sanctionné jotee ngeen sanctionné leen ngeen xam ki ngeen di àndal ak ki ngeen di votel que le man xalifa géey laa tudd dëkk di woote école Maodo Kane ma tëj ay 13 heures sama ñëw di woote ci ma ñëw ba centre neuf waa grand bi fi nekk ak femme bi ni ma woote naan sa place ma ne ko man maa ngi door a tëj di ñëw mu ma da nga sa carte d'identité man ko suma carte du ma ko jox nit. du ma ko jox ma sàmba du ma ko jox ma demba man maa woote ci sama place muy ma woote ndax woote nan may génn di ñibbi daje fii si laa expliqué ko muy ma noo du yoon demal ñu nga war woote bi ma ñëwee par ba tey mu continuer bañ ci après ci laa ñëw fii ñu ma demal journaliste bi nga wax ak moom ndaxte man oote moo tax a xamuñu kan laay wooteel ku ma dugg ca biir ba mu xool naa ko ba gis ko mu dem ci waa ji mu ba gis te man ka ma bëgg a wooteel man maa ko xam su ma duggee maa xam ka may wooteel kon nan ma ba ma woote moo ma fi indi woon si laa laa tasee dama génn muy ma da nga wotewu may ko non wotewu ma muy ma lu tax wotewu may ko danoo ñëw fekk ma wote sama place muy ma du loolu du yoon gée dugaatal ci biir nga réclamé ko ma door a dugaat ci biir man dem woote rek mooy moo fi indi te mooy sama soxla kese du leneen ma ko ñaawlu kay moo tax ma taxaw fii bu dul woon loolu du ma fi taxaw ah, waaw merci par conséquent ñi ngi tardel nit ñi si seen vote ba yenn localités yi indi luñu leen ay bureau de vote loolu nekk na lu ñaaw loo xam ne Macky Sall waru ko parce que sénégalais yi bi ñu koy votel dañu mobi daf leen bàyyi euh, Ablaye daf leen bàyyi ñu voté librement pour fal ko moom kon tey bu fekkee dem na bay daggat baatu askan bi parce que loolu la du question référendum mais Macky Sall mooy dagat euh, baatu askan bi par conséquent daf leen war a bàyyi ci seen liberté may leen ñu voter dans des conditions libre et transparentes ñu xool li nga xam ne moom la seen xel ak seen xool may ñu def ko waaye Macky Sall ak ay nitam amuñu droit bañ a yóbbu ay bureau de vote ci Touba ba nga xam ne tey jii am na ay milliers c'est des milliers de sénégalais yoo xam ne ña nga Touba ñu ngi ñaxtu di wax ni ñoom jotuñu euh, ay bureau de vote beneen irrégularité bi nee nañu que y a plus de cent quatre vingt yoo xam ne ci révision 2015 la ñu bokkoon mënuñu voter loolu jàpp naa ne bu ñu paree ci lii. dinañu créer benn groupe citoyen boo xam ne dinañ porter plainte Macky Sall pour mu expliquer wu devant les Sénégalais lu tax mu privilégié leen leen euh, mu mu mu seen droit constitutionnel n'est-ce pas de s'acquitter au vote. loolu mu nekk ay ponk yoo xam ne bëgg nañ ko xamal réew mi bëgg nañ ko xamal askan bi li ñuy ñaan nag askan bi mooy ci Sénégal yëpp tendance yi leer na mooy noo bi dina jib fu nekk incha allahu rabbi su boobaa na Sénégalais yëpp am sérénité xeexuñu xulawuñu mais ku ñu woo ci violence nag di nga ñu fekk te loolu Macky Sall war na ko dégg ak ay nitam je vous